يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا السلام عليكم di الله مدال جديال سيسيسونيو دروس الخليل على مذهب المالكية mooy dars yooyu di dellu ci téere boobu ñuy wax Cheikh Khalil joxali ñu gën jawahirul maali ñu gën ko xam ci Cheikh Khalil ci wàllu fiq mooy ni ñuy jaamu yàlla tey ñu jàng fasl bi dellu ci alxayd من فصل لي أو دغلا بوخمني داي جانغالي ريغل من الحيض ريغل موي مرق يغن كو خام سي مرق موي دريت لا جو خمني جيجن داكوي غيس موكاي تيري جولي دكو تيري ديف جامو يالا ييني من الحيض ريغل دامون دريت لا وخابلي كصفراتين دا فا ملني تيك تيك ولا غاني جون جون aw kudratin wala lu mel ni loo xam ne dafay xàll jàpp marron mooy lu chocolat loo xam ne xaraja day génn bi nafsihi ci boppam min qubali man jóge ci gannaaw koo xam ne taxmilu mat naa ëmb ki koy gis mooy jigéen ju mata ëmb mooy jigéen ju majeur ñu koy wax sinnul murahaqa ko koy gis kañ lay arrêté nag mën naa dem ba jàpp juróom fukki at mu doog a ci moom maanaam dootu ko gis waaw loolu moom mooy li gën a wóor juróom cinquante ans plupart jigéen bu amee cinquante ans daanaka dootul gis règle moom la ñuy wax ménopause waaw ci tubaab bi moom la ñuy faral di wax ménopause moo jàpp cinquante ans léeg nag mu bañ faa yegg ay yooyu ak quarante mu toll ci ménopause dootul gis règle waa nag julli dootu ko wàcc benn yoon nag d'accord رحمني من قبل ما جوجي تي كانما كو خامني تحمل متن ام عاده تي ادا وان دفعه دونتني بن ген لي ген مو نيو ريك تيغال 5 جور ген جيخ تي مام ولا 10 جور مو جيخ تي مام ولا جوروم بن فان ولا جوروم نياري فان مو جيخ واكثره لي ген بري تي مام نك لي مبتدا تي كي كو كوماسي غيس كي دوغا غيس ريغل دوغا ماجور باي غيس ريغل كوكو nisfu shahrin mu ngi koy gis genn wàllu weer mooy fukki fan ak juróom mooy li ci gën a bëri ça veut dire mënoo ko weesu moo tax ma ne la ka aqalli li gën a néew ci laab xam nga jigéen li gën a néew ci li muy laab ñaari semaine la maanaam jigéen bu fekkee ne li muy toog di ko laab li ca gën a néew ñaari semaine la ça veut la ca gën a bëri mooy ñetti semaine ba lu ko teg parce que weer wu ne da koy gis walil mu'tadati bu dee ko baaxoo gis nag salaasatu e, kooku day dolli ñetti fan istidhaaran ci e, maanaam négandiku ak set ñetti fan lay dolli ala akthari aadatiha ci li gën a bari ci aadam maalam tu jaawis fu du ko weesu nañu lu baax li may wax ki nga xamante ni dafa baaxoo gis règle yàgg na ci majeur na lu yàgg tàmm naa gis règle koko ɓuure juromi fanla ɗon guis weer wone juromi fanla ci ɗon guis régle weer wi wuñoye mo weeso juromi fan ɓoy dolle ñatti fan lay dolle di weeso ñatti fan yooy mo arrété ñatti fan yooy buko weeso ta arrété wolde dam sango ji koko nekk toon régle moo tax mo ne ala actari adatiha li gana bari ci adam malam to jawis hu bom ko weeso كوني ولي المعتادة كيكو باخويس ثلاثة نتفن لي دولي دولي استظهارا تنيغو نيكوك سب على أكثر عادتها موي لغانا باري تي آدم تي لغانا باري تي آدم كون ما لم تجاويسو بمويسو نتفن يوي ثم جنا ولولو هي مام طاهرون جابني مام أجي لابلا كلابلا بوتيغي نتفن أرتهول نجابني مام لابنا لا تطلب لولا نيوح دمول استحاضة موي ديرتو جرنجل kooku day la fa day faral di daal yenn jigéen ñi feebar la boo xam ne dañ ko war a faj walil xaamili bu dee ki nga xam ne daa ëmb di gis règle doon ne bariwul waaye am na lislaam lu mu jàngale rek texte yon tudd ko xadis ça veut loolu mës na am xëy na exception lay doon moo tax dañ koy prévoir bu ñëwee nan lañ ciy taxawee moo tax mu ne wali xaamilin bu dee ki ëmb di gis règle kooku baada ki ëmb wala ki ëmb baada thalathati ashhurin ginnaaw ñetti weer an nisfu kooku mën naa gis règle ba fukki fan ak juróom mooy genn wàllu weer wa naxwuhu wala jàpp ba ñaar fukk ci nga xam ne dafa ëmb di gis règle bu amee bariwul lu muy am waaye bu amee mën naa gis règle fukki fan ak juróom jëm ñaar fukk وفي ستة بفكينك أمب جنا جرم بنوير فأكثر بلوك أبو موي جرم نياروير كوكو عشرون يوما نيار فكفا ليجس راجل كون كي أمب جنا ونياتيوير من ناجس فكفا جرم كان جور وفين جور كي أمب جنا جرم بنوير بليجس راجل وأمي من ناجس نيار فكو عشرون يوما ونحوها ولا جنب فنوير léegi nag waxal ma qabla thalathati ndax li jiitu ñetti weer yi kama baadaha dañ koy attee comme li ci ginnaaw ñetti weer yi aw kal muctaadati wala dañ koy attee comme ci baaxoo gis règle te ëmbul kooku xawlaani ñaari wax ñëw nañ ci loolu mooy lan ndax ki nga xam ni dafay gis règle lu jiitu ñetti weer xam nga ñetti weer la la waxoon sànq maanaam dafa gis dafa ëmb benn weer gis règle wala mu ëmb ñaari weer gis règle ndax kooku dañ koy atte comme ki ëmb ñetti weer di gis règle mooy ndax dañ koy atte ne buy gis man li ca gën a bari mën naa doon fukki fan ak juróom jëm ba ñaar fukk wala moom ci boppam dañ koy jàppe dañ koy àttee atte ki baaxoo gis règle te ëmbul mooy lan du weesu fukki fan juróom ki baaxoo gi asafala ki mooy du weesu aadaam aadaam mooy lan fukki fukki juróom fan la woon ñetti fan la cay teg arrêté aadaam mooy lan fukki fan la woon ñetti fan la cay teg arrêté aadaam mooy juróom ñaari fan la ñetti fan lay dolli arrêté aadaam mooy juróom ñeenti ñetti lay dolli arrêté aadaam mooy juróom la woon ñetti lay dolli arrêté aadaam mooy ñeenti la woon ñetti lay dolli arrêté aadaam mooy juróom benn la woon ñetti lay dolli arrêté léegi ndax kooku ki ëmb benn weer gis wala ñaari weer gis règle ndax dañ koy attee ak ki ëmb ñetti weer mooy fukki fan ak juróom ba ñaar fukk wala dañ koy attee ak ki nga xam ni dafa baaxoo gis règle te ëmbagul loolu la ni xawlaani ñaari wax ñëw nañ ci ñaari wax mooy la mooy ñenn ñi dañ dañ koy atte comme ki ëmbagul di gis règle ñenn ñi dañ koy attee comme ki ëmb ñetti weer di gis règle ñi nga xam ne dañoo koo attee comme ci ëmbagul di gis règle kon kopp day topp aadam aadam bu matee li mu baaxoo gis ñetti fan la cay dolli arrêté bu dee ñi nga xam ne dañu wax ne dañ koy attee comme ci ëmb di gis règle euh, ñetti weer di gis règle kooku day topp kon fukki fan ak juróom jëm ba ñaar fukk mooy la ca gën a bari nag lan la ñuy waxee léegi wayn ak laabam la faqat na tappe mooy na boole ayyaama dami fanu deret ci faqat moom dong ala tafsiliha ci teqaliko summa hiya topp bu matee loola summa topp moom bu matale yi moom mustahadatun na jàpp ne moom loolu deretu jorngel la loolu mooy lan mooy deret ji bu fekkee ne damay ki baaxu woon gis ci daan gis juróom benn fan tey mu gis ñaar arrêté mu toog benn gisul mu sangu julli ginnaaw suba mu dellu si waat day jàppaat day taxawaat arrêté julli bi léegi fanu ginnaaw suba boobu da koy jël boole koog ñaari fan yi mu jotoon gis mooy ñetti fan fan bi dox ci diggante bi da koy génne loolu lay wax loolu la booba euh, euh, wa in taqattaa bu arrêté tuhurun deret bi ak laab bi bu arrêté masalal mu gis benn ñaar mu arrêté mu toog benn gisul ñeenteel ba mu gisaat wala mu toog ñaar gisul juróomeel fan mu gisaat day jël juróomeel ba boole koog ñeente boobu muy ñetti fan la faqat na dappe da tappe na boole ayama dami fani deret faqat dong ala tafsiliha ci teqli ko summa topp bu matee nag bu matee adam bu matee adam mooy juróomi fan yim daan gis mat na jël naa tey benn suba ñëwul mu toog suba ginnaaw suba ginnaawaat suba ñëwul ñeenteelu fan ba mu ñëw mu jël boole kook tey toog benn fan juróom benneelu fan mu ñëw mu jël boole kook tey ak démb ñetti fan noonu bu ma tee juróom nag te arrêté wul loola nag naa dem sangu ji te dem juli ji xam ni loolu directu jorngeel la mooy feebar la bu ñu war a faju ci moo tax mu ne summa hiya topp moom mustahadatun kooku directu jorngeel la yaa ngi dégg topp bu matalee adam hiya moom a jàpp ne mustahadatun deretu jorngel la wa taxtasilu mu dem sangu ci moo mu ne la kulla man wa taxtasilu mu sangu kon kulla man qataa sayi bu deret ci arrêté dafay sangu wata soomu mu mu watu salla tamu julli wa tuuta tamu sëy jote ak borom këram waaw saay bu deret arrêté nee na sangu julli sëy bu dee am borom kër la ak koor léegi nag wal mu mayyisu ki ràññe deretu jorngel baada tuhurin ginnaaw ba mu laabe deretu jorngel mooy feebar la boo xam ne day far di dar jigéen bu dee gis règle ki nga xam ne xàmme na ko baada tuhurin ginnaaw bi mu laabee ki xàmme deretu jorngel ginnaaw bi mu laabe summa topp mu matal fukki fan ak juróom xaydun ci règle bi kooku nag laat wala tastadhir bu mu xaaru ki nga xam ni dafa xamme deretu jongel bu matalee bu matele aadam bu matalee aadam arrêté wul day dem sangu ji dem julli ji te dem faju ji bu xàmmee deretu jorngeel tamatarul aadam day topp aada ba mu mat bu matee mu daal di dem sangu te dem julli moo tax mu ne la wala tastadhiruhu tastadhiru bu mu xaar bu mu nekk di xaar bu fekkee ne mat na te mu xam na ne deretu jongeel bu mu xaar ne dem sangu ji te dem julli ji alal asaxi ci lu gën a wér wa nag laab ci jigéen jigéen joo xam ne dafa dem ba laab ci deret ci mu rek ci règle mooy indisposé niñ koy xàmmee mu ne bii jo mooy mu dem ba kanamam wow gisatul dara luy génn bokk na ci li ñuy xàmmee laab aw qassatin wala mu gis li ñuy tuddee ñaay mooy ndox mu weex ndox mi doon génn dafa dem ba léegi set na wecc ba weex tall mooy wane ni làpp na nee na waxiye moom sax qassa boobu ablagu mooy li gën a jotale ay akmal mooy ay mooy li gën a wóor daal ay qan mooy li gën a wóor mooy bu demee ba weex lii moo kañ ci kañ mu ne lii moo taadatiha ci ki baaxoo gis règle mooy ki baaxoo indisposé ki baaxoo indisposé fa tantadiruha na ko xaar ba kañ mu ne la li axiril muxtaari ba ci mujju waxtu ba ki nga xam ne dafa baaxoo gis règle bu demee ba aadaam mat bis bi te arrêté wul mën nay négandiku di xaarandi ba fi waxtu bi yam maanaam mu bañ a sangu rek julli mais muy xaar ba fi waxtu bi yam bu demee nag ba waxtu wi jeex nag te arrêté wul mu dem sangu ci tam julli ci wa fil mubtaraati bu dee ki baaxoo gis reegul nag reegi taraddudun am nañu déng-déng mooy sikk sàkk maanaam wax joo xam ni wax ju dëgërul la ndax moom dafay xaar ba fi waxtu bi yam wala déet loolu nag mooy wax la jom ñu ngi ko jëlee ci ku ñuy wax ibnu qasim moo tax mu ne walaysa alayha waru ko nag nadaru tuhrin di xool ak tuhriha kon xool ak laabam qabla al fajri avant fajar bal li fi nekkay bi ca ba muy tëdd ca lay seet maanaam jigéen war na di seet boppam bu aaraam de mat bis bi nga xam ne ca la daan tàmm di seet bi de cinq jours wala six wala sept wala huit wala neuf bala muy tëdd mu xool boppam ba xam moom laabul wala déet pour lan bu de laab na dafa war a sangu ji julli gée <coughs> bañ mu faat gée boobu bu dee laab na dafa war a sangu ji julli gee tey préparé julli fajar waaye bu mu ko bàyyi dem ba fajar di jot muy doog a seet bu fajar jote jotagul mu set gis mu set na ko leer ni waxtu gee da koy fay day julli gee ndax fajar gee muxtu daruriyam jeexagul li ñu bëgg mooy moo tax mu ne walaysa alayha waru ko nadaru tuhriha xool ak laabam qabla al fajri fajar kañ la mu ne la bal inda naw mi daf koy def nag avant ba muy tëdd avant muy tëdd lay xool ba xam set na bu setee mu dem la sangu julli fa gée tey préparé suba wasu moo tax inda naw mi ci ba muy tëdd bu dee gisul was subaxi mu xoolaat suba bu bu jugee fajar bala suba jot mu xoolaat ba xam laabu bu dee laab na mu sangu bu dee suba jot na mu sangu julli suba léegi nag wa mën a tere na mu ne wa manaa tere ne sixati salaatin wérug julli moom règle wa sawmin ak koor julli du ca wér tere nañ nga julli ci ak koor ca wa wujubuhuma seen war na nag si wa wujubuhuma ak seenug wareef mooy boo demee ba laab da nga war a sangu ji dem julli ci te woor wa talaqan tere nañu ca fase jigéen bu gis règle kenn ca fase wa bada iddatin ak tàmbali idda koo xamante ni jëkkëram de euh, mu tuddati koo xam ne dafay jàpp idda kon kooku tamit tere nañ ca mu jàpp ca idda te fekk moom ci boppam mu ngi gis règle lu dafa dem ba set awat afar jin ak sëy tere nañ ko ca jigéen jigénte jigéen aw taxta isaarin tere nañu jigéen jëkkër ji xaram na ko diggante jumba xam ba ooma mooy izar bi loolu lépp izar lañ koy jàppe walaw baada niqa in donte ne dafa set ginnaaw ba mu setee la ta sangoogul tere nañ borom këram mu jege ko ludul dafa sangu ba pare yam moomoon ak tiim donte ne dafa set te amagul ndox mu daal di tiim pour julle xam nga kii amul ndox te war a sangu farata waxtu julli jotee day tiim dem julli ci tiim boobu mooy taxawe taxawaayu sangu farata ba keroog muy am ndox bu ndaw se sa tiimee julli kooku jëkkëram xarab na ko ba keroog muy sang wa rafa xaratiha ak yëkkati toj sabe soo xam ne dafa nekkoon ci moom ndaw si tere nañ ko ko parce que bi mu amee ginnaaw bi mu gisee règle kooku maanaam masalan walaw janabatan lu mel ni janaba maanaam ki nga xam ne dafa jote ak bërëm këram bi mu xëyee daal di am janaba waroon sang ba mu xëyee daal di gis règle kooku jarul muy sangu parce que bu sangu amoon njëriñ du tee règle bi mu ngi sanguɓe dugojarin dara terenañ ko oɗo hoola masjidin dugu jak wala tatake fu tamit wawedu def itikaf moy itikaf bu ñuy def ci jakka ci jakka jamonoy weeru koor taxoog jàkka yi di jaamu yàlla julleeg yooyu kooku du ko mën a def wala itikaf bu dee jigéen la moom dañ ne mënes na koo defee ci place boo xamante ni place su jaamukoy yàlla la moom rek lay doon wala tatuufu bu mu wër kaaba gi wa massa mushafin ak laal alquran tamit kaamil tere nañ ko ko tamit laa qiraatan waxuma njàngum alquran wala tatuufu daganul muy wër kaaba gi ki dëkk pour ki dëkk màkk la eh, ki pour ki dëkk màkk la te mata te jigéen juy gis mbaax bu gisee maax du wër gi du def tawaaf fa massa mushafin daganu muy laal kaamilu alquran tamit laa qiraatan waxuma njàng alquran mën naa jàng alquran waaye bu mu laal kaamilu alquran wan nifaasu e, gësin mooy deretu maret mi nga xam ne jigéen moo koy gis jigéen ju dem ba am doom deret jooju nga gis mu xam ne moom lay tere koy julli mu ne damu deret jooju lañ ca tere mooy la tere woon ci rek julleeg koo dugg ci jàkkaak yooyu yëpp moom lañ ko tere ki gis ki nga xam dafa am doom moo tax ne lan la la mu lay wax deret jooju nan la mu ne la damul deret ju la xaraja day génne xaraja génne li lil wilaadati ci ki am doom ñeel ki am doom maanaam wala bay na taw amay ni doonte ne diggante ñaari cheikh la sax ki am ñaari cheikh deret jooju de koy da génne léegi nag mu ne wa aktharuhu li ci gën a bëri ci dara ji sittuuna juróom benn fukki fan lay doon maanaam bu koy xaar la ca gën a bëri ñaari weer lay doon buy xaar deret jooju pour mu set la ca gën a bëri la ca ëpp bëriwul ndax sax ko ñuy toog bu diggante boobu yëpp du set waaye la ca ëpp mooy deux mois du ko weesu moo tax mu ne fa in taxallalahuma bu amee teqale bu amee séparation seen diggante masalan ki am cheikh ki jur ñaari cheikh maanaam ñaari doom mu kii juddu tey kereen ki toog ba diggante lu tolloog ñaari weer muy doog a ñëw masalan bu boobaa mu ne fa ni fa saani kooku day doon ñaari rek ñaari gësin ñaari deret lay doon ki nga xam ne dafa am doom tey kereen ki juddu diggante ñaari weer yooya kooku loolu day doon ñaari gësin maanaam ñaari ñaari masalan bu doon njëy toog ñaari weer da naan la ca ëpp day doon ñeenti weer parce que dina xaar ki xaar kele bu fekkee ne nag diggante bi différence bi matul ñaari weer yooyu kooku benn règle benn gasing lay doon maanaam day mel ni day attewoo comme ki am benn doom masalan ki am ñaari cheikh diggante bi kii juddu tey keneen ki xëy na xaar ba muy judduwaat toog noonu toog ñaari weer kooku day mel kuy maanaam ku am ñaari wee ñaari doom ci diggante bu bu xaw a yàgg tuuti day xaaral kii deretam xaaral kere deretam la ca gën a bari kon lañ naan mën naa dem ba ñeenti weer bu fekkee ne diggante bi nag matul ñaari weer day mel ni ku am benn doom rek la ci gën a bari mooy juróom benn fukki fan soixante jours moo tax mu ne fa inta taxallalahuma bu ñu séparé woo ñoom ñaar fa ni fa saane day doon ñaari gasing mooy ci kaw diggante bi mat ñaari weer wa taqattuuhu ak arrêté am tamit wa manuhu lañ koy tere alxakal xayd dafa mel ni règle lañ koy tere ci règle rek mooy jigéen ji indisposé lañ ko tere woon moom la ñuy tere jigéen ji am deretu meret mooy deretu jur doom wa wajaba war na nag wuduun ak njàppam wa wajaba waral nañu wuduun ak njàppam bi haadi in ci ndox mu dal moomu nga xam ne mooy génn ci bu jamono ji mi am doom ndox moomu di faral di génn di génn bu jigéen buy am faral bëgg am doom day géet faral di génn ci moom kooku waral nañu mu dem jàppi mu dem jàpp ci jamono jooju waaye nag wal azharu li nga xam ni feeñ feer na te ñu jële ko ci ibnu rushd moom naf yuhu da ko dàq nag da dàq wareef googu nee na dul lu war ci moom ay naf yu wudu naf yu wujubil wudu minhu ibnu rushdi nee na njàpp loolu du lu war ci moom loolu mooy nga xam ne ñëw na ci dars bi tey kon ñu xam ne règle am na ku ko tàmbalee gis ak ki koy baaxoo gis ki koy tàmbalee gis la ci gën a bëri fukki fan ak juróom la du ko weesu quinze jours ñuy résumé ko baaxoo gis du weesu aadaam aadaam bu ñëwee juróomi fan la du ñetti fan la cay teg ñetti fan yooyu bu matul day sangu ji adam ɓuure juróom benn fan la wala juróom ñaar wala juróom ñett wala juróom ñeent wala fukk wala fukk ak benn lum ci mën a doon ñett la cay dolli ñett yooyu bu matul day arrêté dem sangu ji du ko weesu ki ëmb ginnaaw ñetti weer mën naa gis régle bu dee am na bariwul lu muy am waaye am moo tax teeri indi ko lu lu ma ñàkkul masa mas na xew bu amee mën naa toog ñett juró fukki fan ak juróom jëm ba ñaar fukki fan la ca gën bari bu dee ginnaaw juróom benn weer la la ca gën a bari mën naa toog ñaar fukk jëm ba fanweer ki ëmb lu jiitu ñett mooy benn weer wala ñaari weer kook nu muy def ndax dañ koy jàppee comme ki baaxoo gis règle te ëmbagul mooy dolli ñett fan bu matul mu dem sangu ci wala dañ koy attee ak ki am ñetti weer ki ëmb ñetti weer gis règle kooku ñaari wax ñëw nañ ci leeraloon nañ ko sànq deret bi bu dee ñëw di arrêté suba ginnaaw suba mu dellu si ginnaaw waati suba mu arrêté ginnaaw waati suba mu dellu si day jël fan yi mu gis mu jël ko boole ko fan yi mu gisul mu éliminer leen fan yi mu gis bu leen boolee mu mat cinq jours te cinq jours la doon gis ñetti fan la cay dolli ñetti fan yooyu bu ko ca dollee te arrêté wul day dem sangu ji dem julli ji te xam ne loolu nekkatul deret règle waaye mm, ñu wax deretu damul istihada la regle bu ñu ko waxee buy génn euh, bu maanaam ki ca euh, ki ràññee deretu euh, jorngeel mooy deretu nga xam ni bokkul ak règle kooku bi ko ràññee bu demee ba set bu ko xoolee gis muy moom waral sangu ji dem jullit bu mu fa nekk di xaar nan la ñuy xàmmee jigéen gu set mooy bu demee ba kanamam dara génnatu fa mu waw wala lay génn doon lu weex tàll mooy li gën a wóor boobaa dafa war a sangu ji dem julli ji Euh, ki nga xam ni dafay gis règle mu doon aadaam euh, euh, fukki cinq jours cinq jours ya daal di mat te arrêté wul na xaar ba ce mujjug waxtu wa ci bis ba fa waxtu wa yam muxtaar ba bu arrêté wul mu sangu ji dem julli ji ki ko tàmbalee gis ndax dafa war a xaar ba waxtu booba loola siki sàkk am na ci ci borom xam-xam yi waaw kañ la seetlu pour xool ba xam set na wala setul ndax buy tëdd la wala day bàyyi ba fajar mu ne buy tëdd la war a xool ba xam set na wala setul bu dee set na mu sangu ji dem julli ji bu fekkee ne setul mu bàyyi ba suba bu suba jotee balaa ñuy julli suba mu xool bu dee set na mu dem sangu jëm julli suba bu dee nag dafa set fekk moom suba jotagul maanaam ñu ngi ci fajar te salaatooguñu dafa war a sangu julli gee daal di préparer waxtu suba ndaxte suba jeex na waaye daruriyam jeexagul liñ ko tere nag mooy julli ak woor ak tere nañ ci tamit fase ci jigéen ak commencé ci idda wala sëy ci tere nañ ko ci jigéen gi tere nañ jëkkëram diggénte jumbaxam ba óomam donte ne dafa set te sangoogul daganu ko donte ne dafa set te amul ndox mu mu sangoo mu daal di tiim pour julli mën na caa julli waaye ji ndaw waa ji mënagu koo jege diggante jumbaxam ak óomam loolu mooy li ci ñëw bu amee janaaba jote woon ak borom këram règle daal di koy dikkee mooy deret jooju boobaa jarul muy sangu parce que bu sangu amul njëriñ ndax règle ñëw na tere nañ ko mu dugg jàkk tere nañ mu def itikaaf tere nañ ko mu wor kaaba gi tere nañ ko mu laal kamil alquran te waxuñ ñu jàng alquran nag tere wuñ ko ko ci bu dee li nga xam ne mooy deret ji jigéen di gis euh, bu amee doom kooku li ñuy tere ki gis règle rek moom lañ ko tere waaye bu amee ñaari cheikh te diggante bi seen diggante mat ñaari weer kooku day mel ku am ñaari doom yu bokkul diggante bi bu matee bu matul ñaari weer nag day koy atte kom ki am benn weer benn doom mooy lan mooy li gën a bëri ci la muy gis deret jooju soixante jours la du ko weesu bëriwul sax li muy am mais soixante jours lañ koy natte mooy li gën a bëri maximum mënu ko wees loolu mooy li nga xamante ni moom moo ñëw ci dars bi tey aqul qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullah